kon ku jël alalam di ma ko jox jëbulu ci man mat na ma laaj ba xam su faato ma faat fu may ne afu fu ñuy ne mais Cheikh Fall na ma jugal dom ñu dem nee na ñu jug di dox ci biir caisse bi nee ñu ba ci caisse gi mam Cheikh lon mam seyne bu ndjay fa ten ba na fekk fa néeg am gal gu te nekk mam Cheikh nama dom ku mom gal gi mu ko ah, gal gi de galu sama mam seyne bu ndjay hmm. mu ma ubil ma ubi geneen gu ndaw gu nekkal ci biir mu ma dom ku mom gal gi ci biir mu ko batay ci gal sama mam seyne bu ndjay da bokk mu a ma ubbiwaat mu ubbiwaat geneen gu ndaw gu nekkaat ci biir ay barkeelu ne ca Cheikh Rafal jël loxoom teg ca barkeelu na moom doom ku ne ko bu Ndiaye mu ne ma ubal mu ne ma dugalaatal ma dugal mu ne ma ubaatal mu ubaat ma dugalaatal ma dugal mu ne ma ubaatal mu dugalaat ba ca gumu gumu jiga maam Cheikh tegaat loxoom ci kaw na ma doom nga ne ku moom gaal yi ma ne ko sama maam Seydou bu Ndiaye mu ne ma yow mii may laaj ak lu bokk ci yow lu sa askan foofee ca ndéem fu Seydou bu Ndiaye dëkk la yow fa ngeen dëkk barka la ñu dëkk ci sëñ Babacar xam naa di santaat bu baax nag di ziar mbooleem mbokki Bambey yëpp euh, man moom dëkk boobu dama ko bëggal sama bopp ndax Cheikh Ibra damaa xamoon nu mu ko nu mu ko nu mu bëggee woon dëkk bi te daan ca wax yu doy waar euh, lu gàtt rek euh, am na daaree Cheikh Ibra dafa newoon Baye Cheikh mbay yaaram nee na ma du Moudou ma mi nga xam ne moo nekkoon ak moom nee na moo fekkee lii bis muy ba Cheikh Ibra guddi mm. fekk nag am ku nelaw ca daara ja ca Bambey daaree Cheikh Ibra ja ca donga ya am ku ca jëwrin ya nag ku ñëw di ko wax maam Cheikh mhm. ngir bëggoon daal su fekkee dañ koy indi njaarim wala dañ koy jàllale Touba wala lu mën a xew rek mooy daal kooku daal comme donga yi ca donga yi la te na mu ñëw ko yëgal Cheikh Ibra bi mu ñëwee maam Cheikh ne ko bu ngeen demee na ngeen ko denc foofu daan ne ko Cheikh Mudu nee na Cheikh Ibra wax ne mhm. keroog jumaay Touba mhm. ñëw na ba njaarim daan ne keroog jumaay njaarim itam ñëw na ba Bambey Cheikh Ibra nag bu Bambey nag doom daa këllu Cheikh bi ne ku ñu denc ci biir këlal ba ne mën nga ne ku sës sa tabax ba ca Touba. <laughs> moo tax macha allah mbokki Bambey yëpp ñu ngi leen di ziar di ci ziar baax sama nijaay signal yi ci woon ak sëñ Baydi nga xam ne ñu ngi waajal xam nga ne bis bu mag foofu euh, xam naa yow moom dañu la wax sax na la fan la ñuy tàmbalee dañ lay wax rek na la Mbàkke Kajoor moom ku ko tudd tudd taarixu yoonu murit ndax fa la lépp tàmbalee taal boo gis muy tàkk ci yoon ni foofu lañ xemmee matt ma diggante Mbàkke Kajoor ak ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. waaleykum Kajoor moom daanaka boo gisee ñu toog ci jotaay bi. Mhm. baatina Mbacke Kajoor a tax. Mhm. yàlla sunu borom dimbali ñu bon toog ci jotaay bi. ndax Mbacke Kajoor moo am. Mhm. ka nekkoon borom Touba. sant ki nga xam ne kii. moo di Serigne Babacar Mbow ab liggéey ca biir Mbacke Kajoor ba tax Mbacke Kajoor la jub si ñu mhm. yebal nu fi mhm. ngir nu waxtaan ci lenn ci biir Mbacke Kajoor mhm. Mbacke Kajoor moom xam ngeen ne Mamor Anta Sali bi nga xam ne moo feeñal ku baax ki ci àddina moo sanc Mbacke Kajoor ku baax ki nekk fi ak sëñ Ibra Mbàkke sëñ Ibra Mbàkke moomu nag mook sëñ Tuubaa ñoo bokk lépp ndax yaa ngi dégg fi may waxee mm-hmm. bu baax sëñ Ibrahima sëñ mooy sëñ Mbàkke Kajoor mooy sëñ Mbàkke Kajoor mm-hmm. sëñ moomu nag moo nekkoon Mbàkke Kajoor mm-hmm. bi nga xamee ne ku baax ki di sëriñ Tuubaa Mamour Anta Sali dem na Serigne tubaa ci boppam moo jël dëkk ba gannaaw bi mu jubóog ñi mu bokkal Mamour Anta Sali jël Mbàkke Kajoor may ko sëñ Ibra Mbàkke moom mi nga xam ne mooy sëñ Mbàkke Kajoor ba ko ko joxee ne ko féete dinaa la dëkk bi moom sëñ Ibra Mbàkke moom wax na ne sëñ Touba waaw dëkk bi de man damaa doon sama baay ba noppi te itamit gannaaw doon naa sama waay ba noppi lii danga ko bokk ak mboolem koo xam ne kii Mor Anta di laaju mu ne ko lu ma def juboo naa ci sama borom juboo naa ci ko ma bokkal Mor Anta Sali bàyyi foofa nag sëñ Ibra Mbàkke moomee di sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Kajoor moomu yàlla suñu borom dogal mu am doom ju tudd sëñ Omar Mbàkke mhm. sëñ Omar Mbàkke mooy sëñ Omar Mbàkke gelongal ci Omar Mbacke moomee yàlla sunu borom dogal mu am baatin lool am ak wilaaya lool am ak taalibe lool kenn ci doomi Serigne Touba yi ñu tudd Serigne Baara bëgg loolu sëñ omor Mbacke moom yàlla dafa defoon mu am aal muy sëñ Baara Mbacke moom Serigne Touba aal jooju mu amoon nag bu ma saan dikk ci moom kenn mënu koo dékk kur sëñ Omar Mbacke mu daan dem nag di dem ci sëñ Omar Mbacke dem sëñ Omar Mbacke di ko gane ji mu yàgg fa ba sëñ Omar Mbacke moomu jël soxna jox ko sëñ Baara Mbacke sëñ Baara Mbacke nekk Mbacke Kajoor ba am fak njaboot sëñ Omar moomu nag sëñ sëñ sëñ Omar Mbacke moomu moo wax nag sëñ Baara ne dama lay utal fii kër nga dëkk fii ak am ndax dañu sëñ Tuubaa dox xat-xat loo mu ne fii kat sama baay bu baax ba joxoon na la ko mm-hmm. muy Serigne Touba mu ne ko waaye nag fii mënumaa ñàkk laa jox fii kër mm-hmm. daggal ko kër mm-hmm. daggal ko am pinc ba ay njaboot ak suñu baara gu bari gënee Mbàkke Kajoor jamono loola moo tax maanaam mbàggal ak Mbàkke Kajoor gi am ba tey ñëpp féetale sëñ baara Mbàkke Kajoor waaye ña nga xam ne ñooy deli moom dëkki Mbàkke Kajoor mooy sëñ Ibra Mbàkke moomee nga xam ne rakk la bàyyi la ci Serigne Touba bàyyi la ci Serigne Touba sëñ Ibra Mbàkke moom bàyyi la ci Serigne laa bëgg a wax dégg nga dëkk ba moom lañ ko may dëkk ba moom ko ko mayee mu am fak njaboot njaboot googu nag sëñ Omar Mbàkke ci la bokkoon sëñ Omar Mbàkke moom laa wax ne sëñ Baara daan fekk Mbàkke Kajoor lu yà lu baree baree baree bari bu mu xam ak bëggam ci Mbàkke Kajoor mu mm-hmm. daggal ko fa kër gannaaw bi mu ko mayee soxnam am maa foog njaboot mm-hmm. daggal ko fa kër utal ko fa am pénc mm-hmm. maanaam te doomi Sëñ Tuubaa du xat-xat loo loolu moo tax jamono jii ñu toll nii ñëpp féetale Mbàkke Kajoor maanaam waa kër sëñ Baara ndax njaboot ak sëñ Baara bu bari foofee la ñu feeñee jamono ñaareelu Mbàkke Kajoor sëñ Abdou Mbacke moom ma lay wax. dafa jege ñoon sëriñ Tuubaa lool. Mhm. bokk na ci kilifa yi nga xam ne seen baatin dara feeñu ci àddina yow man xam rek lay feeñ. te sëñ Tuubaa nag mhm. sëñ Ibrahima Mbacke moo ko ñaan loolu. naa la ci wax lu am solo. Mhm. sëriñ Tuubaa ci boppam bi mu sancee Tuubaa bi mu sancee Tuubaa ba dëkk fa def fa juróomi néeg. dafay woo maam Cerno Ibra Faati ba mu dikk maam Cerno Birahim ba mu dikk boo dëkk boobee ca Mbàkke Kajoor jox na ko sëñ Ibra Mbàkke bi nga xam ne sama borom dogal na mu woo maam Cerno Ibra Faati ak sëñ Mbàkke Buso yëbal leen leen dem leen si wool ma sama waajur woowee mu ñëw ñaanal ma ci dëkk bii ci Tuubaa ñoom ñaar ñoo dem maam Cerno ak sëñ Mbàkke Buso ñoom ñaar ñoo dem Mbàkke jot fekk fa sëñ Ibra Mbàkke bañ ba fekkee sëñ Ibra Mbàkke ñu wax ko xibaar bi sëñ Ibra Mbàkke jóg ànd ak ñoom ñëw bi mu dikkee fekk sëñ Touba ci biir Touba juróomi néeg la fekk néeg bu ne sëñ wàcc na ngir dalal ko fa mel ni ku xeeb néeg wax ne sama kilifa gi ñëw tey jii fekk sama fii Touba su fekkoon ne Mor Mamor Anta Sali mi sama waajur boo ma saan dégg mu ne sama baay sëñ Tuubaa boo ma saan dégg ne sama baay sëñ Ibrahima lay wax waaye sax boo dégg mu ne sama sëriñ Mamadou Anta Sey lay wax mu ne sama waajur woowu di ñëw ñëw gane si ma fii xool naa xool néeg bu koy dalal néeg yëpp dafa mel ni dafa tuuti ci man kon sama néeg a bopp bi laa koy jox di jël néeg a boppam jox ko ko moom sëñ Tuubaa bi nga xam ni bi ñu ko deferee moom fala daan fala daan ne daal dem ca kër sëñ Mandoumbe bi mu dee néeg ba mu joxoon sëñ Mandumbe mu daal jël néeg boobee ni Mandumbe demal delloo delloo demal ca fere ya daal di jël néegam sëñ Mandumbe sëñ Mbàkke Kajoor moom laa la wax ne amoon na ci baatin loo xam ne kenn mënu koo xiyaas mhm. ndax moom rek la sëñ Tuubaa dalal ca Tuubaa mhm. juróom benn weer juróom benn weer yoo xam ne saa bu waxtu julli jotee sëñ Tuubaa mooy bàyyi ko ca kër ga néegam sëñ Mandumbe ba mu daloon mhm. ñëw noddal ko li xaamal ko sëñ Mbàkke Kajoor nekk ca kanam jiite ko juróom benn weer hmm, mu waajal ko nag mu delluwaat waaye ba mu bala mu koy laata waajal bala muy laata waajal sëñ Mbàkke Kajoor moom nee na ko sëñ nee na sëñ Mbàkke Kajoor bi ngay dikk de bi ñu wooyee ba ngay dikk bu ma yebalee maam Cerno yebal sëñ Mbàkke Buso ñu dem ñu dem wax la xibaar bi nga xam ne man maa maa la ngi nga ñaanal si ma fii ci Tuubaa ngeen jéggal ma dama xaw a bar tuuti. waaw ah, bisimilah baax na nga ñaan sama fii ci Touba. bi ngay laajte di ko sëñ sama borom nee ma. wax na ma ñett. nee na ma bu dikkee. sa gan googu di dikk muy sëñ Ibrahima Mbacke. bu dikkee na la digal. na la tere. na la ñaan. lu la diggal na ko def. lu la tere na ko bàyyi. lu mu la ñaan na ko ko may. nit la ko wax. Mhm. bi ko sëñ Tuubaa waxee loolu moom sëñ Amar sëñ Ibra Mbàkke da ko ne bala nga maa wax bala ma laa wax dara nag ma santal sa boroom bi nga xam ne may ma doom ju mel ni yow koo xam ne kii mi ngi naa ma yàlla ne déglu foofu bu baax sëñ Ibra moom nga xam ne moom moom Mbàkke Kajoor wax mu ne ko dégg naa ne sa kër gàcca sa kër gàcca eh, Daaru Salaam mm-hmm. sa xel dafa nek ci may ku mam si Rayan Fall mhm. mu ne ko waw mu ne ko boko ko may mhm. na nang ko jox maam Cheikh Anta bis bobu ci le seigne Touba wa mam Cheikh Anta mhm. mu joge daru salam ñew fekk ko Touba mu may ko ko gag timir ndo timiri taalibe juroom ñeen fukki taalibe ak juroom ñent ak mam Cheikh Anta mu ne ko ak ban mu ne ko sa jëb bii mu ne ko ah, mu ne ko gis na ci ne nga bëgg la xass jamono yi Sëriñ Tuubaa génnagut mhm. gout ci géej gi mhm. mu ne ko gis da nga bëgg xass la xass moy la mag ñi daan def mhm. Nek doomi soxna jang alcorane man ko jang xam-xam am téré yo xamni ne danga koo war a laxas ngir uti ko seigne touba nekkon ci bëgg la xass ngir dem te njëwam mu ne ko dangaa bëgg la xass gis na ko ci jë bii mais nga bëgg la xass bul dem mu ne ko kon digel nako def na tere na ko bana ci ñaan mu ne ko li ma la war a ñaan nag mooy loo bëgg a defal ci àddina na ko lëb sama dara boo kenn xam ci àddina loo mën a defal fii ci àddina nang ma bàyyi moo dem yow ma xeex maag maag ku bokk ci man moo tax waa Mbàkke Kajoor du leen dégg ci dara ci dal ci teey ci lislaam ci lépp ndax lépp ngi leen di xaar lépp ngi leen di xaar ëllëg ñu daal di continuer tuuti maax la diggante boobu ndax boo jógaatee ma mën a jëm feneen tubaarkalla eh, jërëjëf suñu wayjur sëñ Babacar Ka mhm. eh, macha allah eh, sant lañ bu baax a baax alhamdulilah nga ñu loo xam ne daal mën nañ cee sukkandiku ba li mbokk yi bëgg a xam ci diggante Mbacke Kajoor ak taarixu sëriñ bi waaye diggante Mbacke Kajoor ak Cheikh Ibrahima Fall mhm. ak tey lu rëy lii nga xam ni sëñ Cheikh Jëmm Fall Eh, teg nañ ko ko ci loxoom mu tànn ko ko doy sëkk muy sëriñ Babacar Mbow teg ko ci loxoom ngir mu liggéey daara ja nga xam ne moo fa doonoon démb nga xam ne sëñ Mor Abdou moom la yoroon donge yi xam nga ne daara jooju yàgg na daara cosaan la mhm. waaye tamit kër sëriñ Touba nga xam ne résidence sëriñ Touba Cheikhul Khadim waaye bërëb bi nga xam ne tam fa la ñuy wax jigis Bamba nga xam ne fa la lépp xewe mhm. fa lañ nangu la maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. eh, sëñ Bay ñu dikk eh, ci fi nga xam ne sëñ Babacar toll na fa yow fan ngay duggee ci côté rek lu jëm ci naal yu rëy yi nga xamante ne bii eh, sëñ xalif général de Baye Fall <laughs> eh, jox na ko ki nga xam ni tey mooy eh, sëñ Babacar Mbaw ngir ñu war koo liggéey mel na ne nag yow doo fa jóg <laughs> ñàkkul nag kon gis-gis boo xamante ne bii gis nga ko fa <laughs> loo xamante ne bii war naa jëm ci liggéey bu tedd boobu jërëjëf euh, sëñ Mamour mhm. noo ngi doon mhm. di jaajëfal suñu baay bu tedd bi mhm. ci maanaam dalil yi Mbàkke Kajoor ak sëñ Baara mu tedd ma ak sëñ Mbàkke Kajoor li mu ci leeral ak cëslaayal suuf sa mhm. kon am nañu xel mu dal bu baax ci mhm. li ñu bëgg a nab nabi mhm. ndax maa ngi yow bokk benn atte ci liggéey ba ak dong yu bare bare sëriñ Babacar ci baaxam ak ci tëdd nga am ak ci xamulooram loolu dimbalee rek maanaam jot ñu ñu war a mën a ñëw fekke jataay bi ngir leeral ci dara ci liggéey ba lii nga wax léegi rek ak ci sama bay tolloon ci maanaam bi señ bi bëggal xass ngir genn hmm dégg nga sulma maam Moussa Ka mhm. ca wolofal mhm. ngi nan fekk na kon tuuti señ ba dem waaw balam ay mbirum waaw ba kenn musib baateen ba lu ñu musit ñuy hmm daa di wax jaara man lay sëy mu jaay mhm. li maam solo jaara yoro di jaay jaare jaay sax texe kon fofa degaat nañ ci ni bu fekkoon tey Mbàkke Kajoor dañu wax nan yoonu mourid ben marchandise la dañ naan suufas moy marketing ba moo tax njëgg kon bu nee nangam la jar rek kenn du ci waxaale ndax barab ba maam Cheikh Ibrahima Fall sukki woomu ya jox ko tedd ka boppam maanaam keroog bi sëriñ Cheikh jëmb jotee ndigalal euh, Cheikh Sidi Moukhtar bi nu waxtaanee ba nas lépp ba sëñ Cheikh jëmb woo sëñ Babacar mu ñëw mu ne ko naal baa ngi nii liggéey baa ngi nii wax lañ fa bëgg ci lu mel ni kër maam Mor Anta Sali ga kër maam Cheikh Ibrahima Fall barabu siyaarukaay ba ñu yeesal ko ak école ba ñu fay jàngalee xeetu mbay mu amul benn tooke muy école agriculture ba fara am nga xam daanaka fi ne liggéey yi amatul lenn loo xam ne dañ naan brique bi ca morom jël war a toppi fi ne ni brique yëpp toflante na àgg nañ foo xam ne yaakaar naa ni euh, ñu ngi bëgg a xentu te ñu koy bëgg a xentu te finition moom mooy liggéey ndax sa maam Serigne Fall daana ko wax mm. yaaram mu ne Fall mu ne ko ñëw ma ki tàmbali. ki àggale ki àggale laañee mm-hmm. waaye nag tàmbali dana woon yoon ki war a yeggale. Mm-hmm. kon damaa jàpp ni mm-hmm. euh, foofu ñu nar a tabbi. Euh, xëy na boo joxaatee ndigal ca kanam tuuti. ñu suluñuwaat yeneen mbir yoo xam ni. àgg nañ ci fi ñu taloon tembe tembe tembe ci liggéey ba. ndax fii nga waxee léegi ni. bi sëñ Mountakha bi bi Cheikh Sidi Mokhtar joxee liggéey bi sëñ Cheikh Jëmb. àgg ci ni ko. liggéey bii kat su fekkoon yàlla sama borom naroon na tukkal jamono. da ko ne damay damay ci loxoom la ko wax.

sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général des baay Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jot ndigal ngir taxawal kër maam Cheikh Ibrahima Fall ca gi gis Bamba ca Mbàkke Kajoor mu jël liggéey bu am solo boobu dénk ko taalibeem Cheikh Babacar Mbow bu ndéem waaye sëñ bi yamul foofu ne dafa woo mboolem mbokki taalibe ngir ñu ñëw jàpp ci liggéey bu am solo boobu boobu ba tey ci ndimbalug borom bi ñu sumb liggéey bu yaatu ci barab bu tedd boobee nga xëy ni fa la yoonu murit sosoo yaatuwaayu liggéey bi moo waral it ñu fay amal ay yëngu yu mën a jàppale ay mbokki taalibe niki it askan wi dëkk ci gox yooye li jiitu ci liggéey bi mooy beesalaat barab bi maam Cheikh Ibrahima Fall joxe boppam Serigne Touba Xaadim Rasoul barab bi ñu fas yéene ko def mu méngoo xabru maam Cheikh Ibrahima Fall bi nekk ci dëkk bu sell ba di Touba ngir barkeelu ci di tabax bu dëgër te muccu ayib ne lepp béton bu ñuul bi ak ciment dongu lañ ko tabaxé lepp ci yu mbokki mourid yi liggéey bi jamono ji mu ngi tollu ci walu kulaas mu fassiyene mengo méngoog mam cheikh ibrahima fall muy nurok ak gal bu ñu depp ab talé rang-rang bu tollu ci ben kilomètre mbacké kadior mo lay yobbu fa gi gis bamba jamono ji ñu tambali fa jëmbat ay garab lu ci melni ay garabu ak ay garabu koko kër mam Cheikh Ibrahima Fall bokku na ci liñ fay tabax ci way bu toll ci ben hectare ndax fatali bis biñuy tek xeer bu ñëk serigne Cheikh Baara Lahat Mbacke mi fa teewaloon serigne Sidi Mokhtar Mbacke yàlla suñu borom yok ay leeram newoon na kat kër mam Cheikh Ibrahima Fall mënta ñak ci Mbacke ndax mu ngi melni bakkan si xar kanam te bu narono tuki a tukki te kër gi taxawul danañu fomm tukkeeluf aduna. ba kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci Mbàkke Kajoor daal di taxaw kër gi nag tabax nañ lépp xadlu ko ak béton bu ñuul bi rek moo ci des tàmbali nañ sax coulage bi ci digg kër googee dinañ fa defar ab jardin bu mucc ayib ngir méngale kaak jamono bokk na si it daara sëriñ Maam Moox Anta Mbàkke ngir di fa tàggat ay tuut tànk ci njàngalem sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall muy doon ab daara internat ngir tuut tànk yu góor ñi ak demi pension ngir xale yu jigéen yi dinañ fa jàngale alquranul karim lu jëm ci njàngum diine ak du Serigne Touba Xaadim Rasoul duñu yem foofu nde wàllub tarbiya ak njàngum métier dinañ ko fa taxawal muy doon ay métier yu méngoog jamono lu ci mel ni wàllu artisanat ñaw cuub liggéeyu bant ak wàllub tëgg ak it yeneen yu ni demee ñu fas yéene fa tàggat gone yi ci mbay mu àndul ak tooke ngir gëna sam alam gi ak suuf si lu jëm ci way xarale yu bes yi di walu informatique ak làkkub tubab ak ni ñi yoré këru liggéeyukaay lolé yépp dinañ ci tàggat goné yi fofé ñuy amalé mbay mi jamono ji sax wërale nañ ko mu toll ci ben hectare tabax yi japp nañ ko ci anam gu mu gëna gaawé mu am benen barab bu toll ci ben hectare nek ci wetu daara serigne Mam mokh Anta salim Mbàkke ñu fassiyene fa xalé yi ci wàllub mbayum dër wàllub sàmm ak napp niki it jën di ay meññeef yu fay jóge mën a jariñ doomu aadama yi ak jur gi liggéey bu rëy bi ñu fa sumb ñu ngi koy def ci yaatuwaayub suuf su toll ci juróom ñetti hectare yu teg ngir fexe ba gi gis Bamba doon barab boo xëy ni ñi fa dëkkee ak ñi dëkkee ci wet gi dootuñu jéggaanati dara te it lépp lu fay jóge doon luy jàppale xale yi nga xëy ni ñooy jàng ci daara sëriñ Maam Mor Anta Mbàkke ci geneen wàll toll na ci ñaari at soxna yi dëkkee Mbàkke Kajoor ak dëkk yi ko wër ñu ngi leen di jàngal ay métier foofee ca gigis gis Bamba ci kaw loolu ñu leen di tàggat ci wàllub artisanat lu ci mel nii ñaw cuub ràbb ak yeneen yi ni demee jamono ji tàmbali nañoo liggéey liggéey bu yaatu ba sax di ko wecceeku ci ay yeneeni gox ñoom soxna yi sax ci seen liggéey bu am solo boobu taxawal nañu ab kees d'épargne bokk na siit ñu ngi leen di tàggat ci wàllum njàng di alphabétisation ay taalibe murit dinañ bawoo ci ay gox yu ci mel ni Mbuur Dakar Ndéem tuuba Ndar ngir jàpp ci liggéey bi ci seen doole ci seen xam-xam ak ci seen am-am ñuy ñaan xéewal yu yaatu tàbbi ci képp ku jàpp ci liggéeyu Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall bi liggéey bi nga xam ni li ko tax a jóg mooy dimbali mbokki taalibe yi fu ñu mën di nekk ngir ñuy ñëw di gëstu ci fii nga xam ni mooy Guiguiss Bamba fi yoonu murit soso juróom ñaari fan si weerub janvier ci atum 2015 ci ndigalu sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na sunu borom yokk ay leeram te tàññu si barkeem sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jot ndigal ngir taxawal kër maam Cheikh Ibrahima Fall ca Gigis Bamba ca Mbacké Kajoor mu jël liggéey bu am solo boobu dénk ko taalibeem Cheikh Babacar Mbow bu Ndéem waaye sëñ bi yamul foofu ne dafa woo mboolem mbokki taalibe ngir ñu ñëw jàpp ci liggéey bu am solo boobu boobu ba tey ci ndimbalug borom bi ñu sumb liggéey bu yaatu ci barab bu tedd boobee nga xëy ni fa la yoonu murit sosoo yaatuwaayu liggéey bi moo waral it ñu fay amal ay yëngu yu mën a jàppale ay mbokki taalibe niki it askan wi dëkk ci gox yooye li jiitu ci liggéey bi mooy beesalaat barab bi maam Cheikh Ibrahima Fall joxe boppam Serigne Touba Xaadim Rasoul barab bi ñu fas yéene koo def mu méngoo xabru maam Cheikh Ibrahima Fall bi nekk ci dëkk bu sell ba di Touba ngir barkeelu ci di tabax bu dëgër te mucc ayib ne lépp beton bu ñuul bi ak ciment dong lañ ko tabaxee lépp ci taxawaayu mbokki murid yi liggéey bi jamono ji mu ngi toll ci wàllu coulage mu fas yéene méngoog xabrug maam Cheikh Ibrahima Fall muy nuroog ak gaal bu ñu dëpp ab tali rang-rang bu toll ci benn kilomètre jóge Mbàkke Kajoor moo lay yóbbu fa gis Bàmba jamono ji ñu tàmbali fa jëmbat ay garab lu ci mel ni ay garabu tiir ak ay garabu koko kër maam Cheikh Ibrahima Fall bokk na si liñ fay tabax ci yaatuwaay bu toll ci benn hectare ndax si fàttali bis bi ñuy teg xeer bu njëkk sëriñ Cheikh Baara Laxat Mbacke mi fa teewaloon sëriñ Sidi Moxtaar Mbacke yàlla na sunu borom yokk ay leeram newoon na kat kër maam Cheikh Ibrahima Fall mënta ñakk ci Mbàkke Kajoor ndax mu ngi mel ni bakkan si xar kanam te bu àdduna naroon tukki te kër gi taxawul danañu fomm tukkeelu àdduna ba kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci Mbàkke Kajoor daal di taxaw kër gi nag tabax nañ lépp xadlu ko ak beton bu ñuul bi rekk moo ci des tàmbali nañ sax coulage bi ci digg kër googee dinañ fa defar ab jardin bu mucc ayib ngir méngale kaak jamono bokku na ci daara serigne mam mo xanta sali mbacke ngir di fa ay tutang tank ci njangalem serigne touba ak mam cheikh ibrahima fall muy don ab daara interna ngir tout tank yu gor ñi ak demi pension ngir xalé yu jigen yi dinañ fa alquranul karim lu jëm ci njangum diiné ak xasaayidu serigne touba khadim rasul duñu yam fofu ndé wàllub tarbiya ak njangum métier dinañ ko fa taxawal muy don ay métier yu mengok jamono lu ci mel ni wàllu artisanat ñaw cuub liggéeyu bant ak wàllu tëgg ak it yeneen yu ni demee ñu fas yéene faa tàggat gone yi ci mbay mu àndul ak tooke ngir gën a sàmm alam gi ak suuf si lu jëm si way xarale yu bees yi di wàllu informatique ak làkkub tubaab ak ni ñuy warkal la euh, jërëjëf euh, Serigne Ndiaga Seck Salih jërëjëf euh, Serigne Lamine Ndiaye macha allah borom borom borom borom borom gan gi warkal <laughs> la di ko jaajëfal bu baax macha allah am na solo lool di jaajëfalaat baax Serigne Alioune Badara Ndim bi nga xam ne dégg ngeen kàddoom noonu nga xam ne liggéey bu am solo la ci def waaye jaajëfal bu baax abaax baax itam mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ko doon topp di ziar bu baax a baax itam maam Cheikh mbaw nga xam ne moom jàmbaar la moom damay wax ne moom jigéen la joo xam ni cërub góor lañ ko fàggul waaw maam Cheikh ku ku ku ku bàyyi faale te jàmbaare waaw bëtam bépp doo koo teg rek ci liggéeyal Cheikh Ibra Fall di soññee bu baax man sax dafa may soññ saa su ne waaw di ko jaajëf di ñaan sama borom defal ko ndam waaye di ziar bu baax a baax soxna Aïcha nga xam ne moom boo ko fekkee Mbàkke Kajoor day laxasaayu rek waaye lépp sëñ Babacar Mbow la nag di bu baax ñoom yaa ngoone ak mboolem ñi jàpp liggéey bi yëpp sëñ Fall ak ñoom seexu naa ñoom ñëpp di leen jaajëfal baax a baax xam naa dañuy daal di dikk rek eh, sëñ eh, Babacar gis nga liggéey bi mm-hmm. eh, daanaka won nañ ñu li nga xamante ne bii moom lañ fa yéenee def te mm-hmm. tàmbali ko bu yàgg boobaak léegi nag ni ko sëñ Mbay waxee léegi rek daanaka mën naa leen ne ci finition la ñuy bëgg a toll te finition mooy liggéey mm-hmm. ndax lu ci ëpp ci brique moom tege na ba coulage bi lépp mat na waaye nag finition lu jëm ci raax lu jëm ci montey buntu lu jëm ci peinture lu jëm ci abie lu jëm ci maanaam décor lépp liggéey waaye rek nga dikkalaat ni amoon nga foo am solo nag foo tegoon sa loxo mooy la la la ne ca Mbàkke Kajoor te ñëpp war a da wuti ko waaw la nekk ci Mbàkke Kajoor sëñ bi mhm. euh, euh, lu am solo la ñëpp ko war a xam mhm. bi sëriñ bi ganalee waajaru mu baax woowu mhm. ba ko mu dem gannaaw loolu nag ci la tukki sëriñ Tuubaa bi ci géej gi amee te moom wax na ne sëriñ Tuubaa waxal na boppam ne leer na ko ne bi nekk ci géej gi gannaaw yàlla ak rasulillah yi ak géejul eleel xaali biin nga xam ne ñoom la àndaloon ña ko doon wettili sëñ Ibrahima Mbacke moom sëñ Mbacke Kajoor ak Mamor Diarra nee na fu mu a gestu gis na leen nee na fu a gestu gis na ñaar ñooñu sëñ bi waxaat na ne mhm. dem na moom bar sàq mhm. di gëstu néew ya fa ne mhm. kenn ku ci nekk yeeyoo nga ndimbal Bamudes mu des sëñ Mbàkke Kajoor moomu ak Maamoor Jaara neena ñom ci adina ñom rek ñom ñaar rek gannaaw rasulillahi ñoo génn àddina yëruñu bàkkaar yëruñu bor te ñom ñaar sëñ Mbàkke Kajoor ak Maamoor Jaara momu ci ni la ko bëgg waxe xam nga ni bàyyi la ci Mamor Jaara ñu ñëw ñu ñëwaat ci loolu bi sëñ bi demee ci géej gi ba dellu si waat bi muy def fi mu fu mu jaaroon fu nekk mu jaaral fa dafa dem Mbàkke Kajoor fekk fa sëriñ bi ab diir soog faa jóge ñu indi ko Ceyeen Ceyeen Jolof bi ñu ko indee Ceyeen Jolof mu woowaat maam Cerno woowaat sëñ Mbàkke Buso yónniwaat leen ca sëñ bi sëñ Ibrahima Mbacke ñu wooyi ko mu dikk fekkaat sëñ Touba ci Thièyeen six mois la fa def ak moom juróom benn weer ba ko sëñ bi wa ganalee ba di ko yeewi moom sëñ Touba ndax booba sëñ bi mënta dem li tax mënta dem dafa nekkoon ci résidence surveillée sëñ bu mag bi muy Xaadimu Rasuul mëntoon a dem Mbacke mënut a demati Mbacke Kajoor waaye dafa yebal nag maam Thierno ak sëñ Mbacke Bousso ñu dem Mbacke Kajoor fekk sëñ Ibrahima Mbacke muy sëñ Mbacke Kajoor ñu woyi ko mu dikk nag mu dikkaat ci yéen fekk ko fa am na fa juróom benn weer yi amoon Touba la amaat ci yéen ak sëñ bi hmm. bi ko sëñ bi dee waajal ba waajal ko ba noppi mel ni tey jii maag sëñ Babacar mii ci gàttal ci misaal laa lay wax yow mii nga gane si sëñ Babacar ma di taalibe sëñ Babacar mii hmm. ba ngan gi jeex ma bëgg laa yeewi ma ñëw ne la ah sëñ sëñ sëñ ndawkat ne daa bëgg a yeewee ko yow sëñ Babacar la nga ko jox mën nga ko jox ma jox ko ko pour yeewee ko ko xam nga li sëñ Tuubaa def mboolem kawar gu mu watte ci bopp ci yaramam mboolem ay weyam yi mu daggoon da koo dajale takk ko mboolem xalima yi mu doon tagge yonent bi alayhi salaatu salaam dafa damu cat yi dajale ko jëlal boppam perkaat xottil ko boppam ñawal ko boppam def ci lépp jël ci laj ko lépp loo xam ne dafa ànd ci ko ñu yóbbu barsàq mu def ko ca daal ne bi may laata dem ci géej gi lañ ma tàgge woon sëñ Ibrahima Mbacke waaye nag man maa ñaanoon yàlla mu bàyyil ma ko bu ma dellu siwaat ba gisaat ko daal ko koy jox maam Cerno hmm. ne ko àndal ak moom ba ak Mbàkke Kajoor maam Cerno Ibrahima Faati mii laa lay wax borom dara muuti mu ànd ak moom nag mhm. demaat nag Mbàkke Kajoor toog na fa une semaine la fa def juróom ñetti fan la fa def moom maam Cerno ak sëñ Ibrahima Mbàkke sëñ Ibrahima Mbàkke wàccam liggéey mhm. mu bind ñaari téere jox maam Cerno mhm. ne ko suñ koy denc nañ def bii ca bopp ba nañ def bii ca tànk ya suñ fa bàyyi ko malaaka ya war a ñëw sama jëm lañ fay fekk sama jëm lañu fekk foofu ca bàmmeel dal di wax ni ba mu teew une semaine mu wàcc ab liggéey maam ci ñu raam bak wàcc ab liggéey maam Thierno yëgal ko ku baax ki bi ko yëgalee ku baax ki moom tamit mu daal di ne nañ yónnee ca sëñ Maam Mor Jaara mu dem taxawu ko borom sam Maam Mor Jaara foofe dem ca Mbàkke Kajoor taxawu sëñ Ibrahima Mbacke mooy di sëñ sëñ Mbacke Kajoor ñu denc ko ñu jël ñaari téere yi sëñ Tuubaa bindaloon ci loxo boppam euh, euh, euh, bii ca bopp ba def bii ca tànk sëriñ bi waxaat ne xalima jox sëñ Ibrahima Mbacke ne ko nañ ko denc te fonk ko buñ ci xeex buñ ci bind luy wàññi ab jaam waaw dégg daal di koy wax ne ko mhm. ñu ciy dimbali jaam yi Yang ngi dégg mm-hmm. ndax xalima yooyu lu kasih xas bind kenn dootu ko far moo ko la ñu bind ci la elma fuus ñooye waaw waxtu wi surtout la ma ko sëñ Gelo mm-hmm. Touba kon masalah. Waktu mm-hmm. waxtu wi surtout la ma ko kon ba mbir lu mu yëngu musuh mosoo dégg nit ak Mbacke batin ko ci baatin bi am barki démb rek Cheikh Modou Mountakha Cheikh yéen ko fi yàlla yàggal. amiin amiin ku mu gis nga bokk Mbàkke Kajoor yëpp la fonk. mais ku gis nga fonk bokk Mbàkke Kajoor dafa dafa am maanaam bët bu lay xool ndax maamam ju baax ja ni mu fonkoon Mbàkke Kajoor. kii nga xam ne moo dëkk ak di sëñ Cheikh Tade Mbacke. mi nga xam ne fi mu ne ku nekk ku sant Mbacke bu dul sëñ Abbas. su waajur la ci yow. sëñ bi nee na ñett damaa yéem ci moom sëñ Muntaxa nee na ñett yéem na ci moom. waaye benn naqare na ma ci moom. ñu ne lu nekk ci loxoom bi day dem ba nekk mu tawee ci daraja dafa tawee ci alalam tawee ci daraja ñetteel bi mooy duma xam soxlaam ñetteel bi nee na sëñ bi mun taxaa ni na dama damaa bëggoon foo toll may xam soxlaam lu bëgg ma def ko benn mhm. bërki dem rek la ko woo ko mhm. sama waajur mhm. bu fi nekkoon dinaa jënd fas jox ko kon fas wooyu ma jox war jox sama waajur muy sa am basir war ko jox sëñ Tuubaa yow laa koy jox jënd façon bu bees tàq jox ko ko ne ko nag na ma ñaanal kon baatin ba ma nga mbàkk ka yor te it nag ma gàttal mhm. ci gàttal ma ma daaneel waaw mbàkke ko mu ku koy wax ci yoonu murit amul benn nit ku dëkk ku ku ku ku naan as aslamtu nafsi mhm. te waroo xam lan mooy baatinu mbàkke ka yor ndax li ko waral ku baax ki fa la jàngi alxuraan mhm. Serigne Touba fa la jàngi alxuraan bi mu fa jàngi alxuraan ba noppi mbooleem ay ay kilifa yi kilifa yi nga xam ne dañoo sant Mbàkke seen seen seen seen seen i reen reen foofu la bàyyi ko waaw ñaar mhm. ñetteel bi mhm. ki nga xam ne kii ku jëriñ ci yoonu murit mhm. moo tax nga jëriñ ci yoonu murit dañ naan ñaar fukki fan ci weeru koor rek mhm. na ci la sëñ Cheikh Ibra Fall jéblu sëñ Tuubaa mhm. waaw ñaar fukki fan la mais ñëw na fa lu ëpp ñaar fukki fan ñëw na fa lu jiitu ñaar fukki fan fukki fan ak juróom-ñaar la fa la fa agsi fukki fan ak juróom-ñaar la fa agsi mhm. defu fukki fan ak juróom-ñaar defu fukki fan ak juróom-ñett defu fukki fan ak juróom-ñeent ndax bu njëkkam ba mu dikkee ba mu joxee sëñ Tuubaa boppam sëñ Tuubaa da ko ne luy sa ittee mu ne ko àgg ci yàlla te àgg ci yàlla mu ne ko àgg ci yàlla rek mu wax ko julli wax ko woor wax ko asaka wax ko yooyu yëpp nga xam ne mooy ah, mooy xawaa islam yëpp mu wax ko ko mu ne ko yooyu def naa ko daal di génne tànk bi nii di won won won ni sëñ Tuubaa fii am légét bu bu xóota xóota xóot hmm. mu ne ko lii eh, eh, julli bu ma ko def ku dul yow maa la mën ci julli waaye xool naa ko xool mën ma àggale fen moo tax ma may topp tànkam yàlla ba mu dugg sa kër bi ma dugg fii hmm. bala ma génn sa keur gi nak kon mhm. dem nga won fi tankab yalla jaar ba génn ma topp tànk ba foofu dugg ma dugg fa ko xam li xew de hmm. ndax yaa ngi dégg lolu mhm. loolu mu ne ko mu ne ko mu ne ko loola fi am mhm. dalal ko ci barab sëñ bi nek ci barab bu mu ci ni fan nek na fa fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak juroom ñet fukki fan ak juroom ñent ba ñaar fukki fan ca yor yor ca dimanche ja musugo dik ci sëñ touba sëñ touba nak sogo a ci bir jël nag ma bagage ya mu jël. indi ko jox ko nag Cheikh Ibra Fall. Mhm. ne ko nag daal di koy joxoñ nag joxoñ joxoñ àll bi. mu jumtuwaay waaw mu jumtuwaay mu daal di nag xam ne ne sëñ bi nag sant na ko liggéey mhm. mu soog di laxasaayu nag mën ta tàggoog liggéey sëñ Tuubaa ba ni ba ni fekkee sëñ Tuubaa bi génn léegi foofu laa yem ba nga ba nga dellu si tubaarkalla jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar Ka macha allah Eh, dégg nga fi mu wax mos Cheikh Ibrahima Fall mos demee ci biir suuf te moom mooy 75 ans Cheikh Ibrahima Fall sa mhm. liggéeyal a liggéeyal sëñ Bamba wallaay wallaay ba bii bàmmeel la ci xamoon na ne ci kaw suuf du kondam eh, ñu dem bismillah ah, ci moom kay xanaa. Hmm. sëñ Maour. waaw mbégte am na lool. Hmm. te euh, waxtaan wi gën naa am cëslaay. waaw ndax li ma wax léegi ci nii suuf sa. Hmm. bu doon yoonu murit. Euh, benn marchandise la bu ñu bëgg a valoriser. kon dama naan Mbàkke Kajoor. dama naan kon bu fekkoon marketing la Mbàkke Kajoor. moo tax kon dalil jooju ñu mën a wax ni. Euh, dooley dooley dooley Mbàkke Kajoor. li mu defal yoonu murit ndax li nga ni ku tedd ki fa la jàngal xuraan. maam Cheikh Ibrahima Fall fa la fekk ku tedd ki. ak la fa xew lépp kon bu euh, Cheikh Sidi Mokhtar jëlee liggéey bu toll noonu ngir bëgg suuf si joxaat ko darajaam ak wàccuwaayam ba naal fa kër maam bi tëdd di kër Maamoor Anta Sali naal fa kër Seexul Xadiim naal fa kër maam Seex Ibrahima Fall barab ba nga xam nag moom mooy dëgg dëgg ci islaali barab ba maam Seex Ibrahima Fall jaayantee ñu fas yéene yeesalaat barab ba joxaat ko wàccuwaayam te liggéey bi euh, sëñ Mamour mu àgg ci bu doon ci li mu koppara li ñu mën a jàpp àgg na ci euh, un milliard trois cent et quelques millions. quatre cent. Mm-hmm. un milliard quatre cent kon. ndokk ndax yàlla te un million quatre cent millions yi. Mm-hmm. da nga koy wax ngir tënk chiffre. waaw waaye la ci jooy di jëm. fa waxoon na loola. Mm-hmm. ndax sëñ Babacar. Euh, melokaanam wa ak ni mu ŋànkee liggéey bi. fii sëñ Mamour waxee ci liggéey fi mu toll. nga xam ni fi ne toll nañ ci kuule. toll ci raax. toll ci cadre yi war a dugg bunt yi war a dugg carrelage bi nga xam ne kon dañuy jàpp ni lu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt murid yi xam ne ñu ngi yër Lamp Fall FM di saytu liggéey bi di yëddu it nekkul ci site internet yi di xool fi liggéey bi toll kon dama wax ni sëriñ bi mënoo mën sa wet muy tële booram comme dañuy dërëm junni soo ma joxee dërëm ma jox ma jox la junni sa dërëm ba lu mu koy jariñ kon sa dërëm da ko bëgg a ñoŋeel mhm. ba defal ci lu kawe su jot mhm. kon na murid yi maanaam dënir lu waat liggéey bi mhm. jaajuwaat jëm ca alhamdulilah nañ murid yi dënir waat liggéey bi jaajuwaat jëm ca ndax kat sëñ Mountakha leeral na bu baax a baax a baax baax fi mu toll nii tamit ci liggéey li sëñ Tuubaa liy dëgg dëgg dëgg maanaam bi mu toogee ci liggéey bi ba suñu jonnee naal yi ku ne xam ne ni faw xana jot ku ne xam ne naal yi kawe na jot te kat ñokk murid di képp moo ci war tabbi damay fal jox ni sëñ Mamadou ku yàlla suñu borom suturaal ba sa ñaar fukki dërëm jarul pour jarul sàngara loo am doyul mm-hmm. te nag jàpp naa ni murid yi way nañu way gu toll ni mm-hmm. sunu ñaar fukki dërëm du jar pour du jar sàngara du jar pour du sàngara mm-hmm. kon jàpp naa ni naal bu ñu teg ba tiim ko bu doon nangami junni milliard ñu ngi lijjanti loola nu ñu ko inauguré waaye beneen bay soobaat la ñuy la ñuy calculé waaye nekkul dañ naan lii ñu koy ñu koy tërale waaw kon nañu takkaat ndigg yi jaajuwaat déglu jàmbaar yi mhm. sëriñ Cheikh jëmb ji di sëñ Babacar mhm. ndax ndax melokaanam wax mhm. ndax damay wax maa ngi waxtaan maam Cheikh sànq ma ne ko sëñ Babacar de maanaa ku jàpp ni day ak njabootam dañuy yëg ci moom diggante doom ak bàyyi def nañu erreur yëgul sax loolu dunduñu loolu sax ku mu jur yar na la ba ngeen ni nër xamal na la ba nga ne jar. Mm. tarbi la ba nga ne ner. Mm. te melokaanu ma. Mm. boo ko xoolee xam ne kii moom. lu man a xew. mooy Cheikh Ibrahima Fall lekk na ko ba mu jeex tàkk. waaw Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Babacar dara. kon jàpp naa ne kon kooka bu ñu ko xeeñcoo. Euh, teg ko një. jàpp naa ne insha allahu bi la sëñ Mountakha joxe woon liggéey ba Serigne Cheikh Jëmb. Euh, Cheikh Sidi Mokhtar la mu ko la mu joxoon sëñ Cheikh Jëmb. sëñ Cheikh Jëmb jibbal ko ko. am naa yaakaar ni kon yàlla na ànd ak moom sëñ cëppaandaw ja te cëppaandaw ja kat mooy li nga wax rek sax ndax suñu baaw kat àgg na ci ki ma ko jox mu nopp may jëbali caabi maa koy saytu di jox wàccuwaayu kenn ña fay ne di jàngale mbaa di fa xëy ko wax dama ko ñëw leen jox seen wërsëg xanaa kon loola leneen la kon sëñ Mamour jàpp na liggéey bi luñ ci mën a leeral lu ne rek yow ngànk nga ci loo xam ni boo ko ci leeraloon sunu sunu kaddu sax du jóg waaye day fekk ne jataay bi mm. daa mënta ñàkk nii nga ci ko juguñu ca keppaaram juguñu ca moom ngir xool ko ak melokaanam ba ak xent gi ñu xent jëmmam ngir teg gi mu teg njéem ci sëñ Tuubaa ak Cheikh la mm, jaajëf euh, Mbaye Babacar jërëjëf Mbaye sëñ Mbaye Guèye macha allah euh, xam nga wax nga lu ma mooy sëñ Babacar euh, dañ ko dimbali Cheikh Ibra nag moo waxoon na kuñ dimbali nga mën lu mënutoon dañ ko dimbali ndax man danaa la wax mbir sax ci moom mooy dafa am boo leen tegee bët niñ ko daree rek xam ne kii ñu dar am na lu ne fi moom ndax am na ci ñoo xam ne caaxaan yëkkatiwu leen ku mel ne sëñ Alioune Dieng borom pas-pas la. kenn waxtu ko kooku sëñ bee koy liggéey loo amul jot. kenn waxtu ku mel ne sañ Gabou Guèye. kenn waxtu ko kooku sëñ bee koy liggéey loo amul jot te sëñ Saliou ba tey. Mhm. waaw. Eh, ku mel ne sëñ Cheikh Ngounda Fall. Mhm. surtout fu mu fu mu làmb loxoom fépp fu mu roof loxoom dara nga fa. ndax oh. moom ndax moom moom waaw moom dafa xam li xew. feneen na moom fu mu jëf loxoom rek dara nga. koo waaw te gis naa ne gudd sax guddi sax ñëw na ko Mbacke. guddi ñëw na ko fa. nee na pas-pasu sëñ Babacar doo moom moo ko yéem moom waaw waxuma dara nag waaye ñi ak ñi ma xam ci comme yéen nga xam damaa jaxasoog yéen ku mel ne yow ak ak ak Cheikh May Sëgey ba ci maam seexloo Lo Baye mii nga xam ne boo dajee ak moom ci mbedd yi boo xool boo yeexee sax yow mu tromp la te jëfa koy dundal boo dee xool ci image nii rek boo dajee ak moom da nga koy xebet nag ni nga koy xeeb mooy ci image rek ngay xool ndax nit ñi xam nga solo lañ xam Mm-hmm. ak sañseeg yu mel noonu mm-hmm. te newul foofu moom moom dafa koy dundal te saa bu fanaanee fii fanaan suba ga Mbàkke Kajoor la fanaan sëñ Babacar da koy da koy soññ kon loolu li ma ci jubloo wax rek mooy dañ koo dimbali mm-hmm. ndimbal li nag mbay daa yàgg loola ca Cheikh Ibra Fall la woon wax naa ko léegi ma ne waa ndéem war nañoo sant Cheikh Ibra bu wér maa la wax ñëpp war a sant Cheikh Ibra waaye ndéem moom kenn warut a dem ñu des waaw Baye Abdou Niang moo ma wax ci làmmiñam ne sama nijaay Cheikh Moudou nee na mas naay bës Cheikh Ibra Fall ci njëriñ di ko bës di ko bës ba mu yàgg ma ne ko bàyyi dama laa bëgg laaj Cheikh Ibra Fall na ñokkit na maa doom laajal balaa laaja wees ma doom laajal balaa laaja wees mhm. ma ne ko ñii nga ma booleel muy néegub may sa coro géey nga xam ne ëpp ci moom sama mbokk samay mbokk lañ mhm. ñu jël seen alal di ma ko jox waaw suñ faatoo ma faatu fu may ne ak fu ñuy ne ah, doom laaj nga lu mat a laaj cheikh mudu ne ma ne ko damaa xam ne nelaw aw nit di waxtaan su ma yeewoo lañ doon wax kon ku jël alalam di mako joh. jox jébbalu ci man mat na maa laaj ba xam su faatoo ma faat fu may ne ak fu ne ne cheikh rafan ma jugal doom ñu dem nee ñu jug di dox ci biir kees gi ñu ñëw ba ci kees gi maam cheikh sancaloon maam sëñ bu fa fekk fa am gal gu te nekk maam cheikh na ma ku gi ah, hmm. mu ne gi de sama mam sëñ bu njaay mu ubil ma ubi geneen gu ndaw gu mu ne ma doom ku moom gaal gi ci biir mu ne ko ba tey ci gaali sama maam Seydou bu Ndiaye la bokk mu ne ma ubbiwaat mu ubbiwaat geneen gu ndaw gu nekkaat ci biir ay barkeelu ne ca Cheikh Rafal jël loxoom teg ca barkeelu ne moom doom ku moom barkeelu yi mu ne ko sama maam Seydou bu ma dugalaatal ma dugal mu ne ma ubaatal mu ubaat mu ne ma dugalaatal ma mu ne maam Cheikh tegaat loxoom ci kaw na ma doom nga ne ku moom gaal yi mu a ko sama maam Seydou bu Ndiaye mu a ma yow mii may laaj ak lu bokk ci yow lu sa askan foo feete ndéem fu sëy ni bu njaay dëkk ëllëg waxtaan fa ngeen dëkk ndax nag ma wax ne kon ah ku ñeme dañ laa déy dëgg la dëgg la waaw kay jàmbaar amul kuñ dimbalee am na dëgg wax fi wax tuuti waaw macha allah fi wax tuuti mhm. su fekk ne sama borom mhm. dogal na addina bi mhm. da ko doon xool ci nam la ko mën a waxee ci àddina ci leeral rek ci mbiram addina muy match de football hors concours yi ñii la ma lay wax lañu doon. Hmm? rasulullah yi ci jëkk. sallallahu alayhi mel noonu du am ci àddina. wax na ko. waaw. raamal wara bu kenn koy. Hmm. Hmm. raamal wara ney la fadlan musra ina rahu. wal fadli inda rasulillahi xaraaru. kiltal yele ila a sax yum tula simu u baslun li man laanoo wa baxsu li jaaroo kooku moom concours la yàlla ko bind mu gënal ko ci jaam yi mu ne kii ma neex benn ngi noonu. benn. Mhm. mu xool nag. Mhm. ama jëmi ulan bi ay wa rasul. Mhm. fa xaqadun ñu ne ula fiyaara bi les cent vingt quatre mille prophètes comme li Muhammad amul ci ñëpp bu ñu leen boole woon dajale leen ñu jël seen ak baax ba àdduna bi tàmbale bi fa mu daanoo ñu jël weewu sëñ dina Muhammad teg ci benn plateau jël yi des ñëpp teg weewu rasul lay gañe leen sëñ Tuubaa teel a xam loolu jëkk fa ñëpp mante ñëpp mu def sëñ Tuubaa nu mu deful kenn ko kii laa lay décorer yow mal xëy am décoration première décoration sëñ Tuubaa la hmm. mu ko ci Rasulullah alayhi salaatu salaam de joram mu ne te yonente bi euh, euh, xaatumu nu mboor ba sëñ Bamba hmm. bu ëllëgee yëkkati hmm. moo tax sëñ bi naan ba ak yàllaw kiraamal xura yu ba xëy na bee sarba sëñ Tuubaa nag mel gi mel ci sëñ yonente bi kenn mustu ne mel mu jël Cheikh Rafal décoré ko ko ne ko loo mës a def ci diine lu mu def ci moom daal di koy décoré Serigne Touba maanaam commune Serigne Touba commune Serigne Touba du am ci monde bi hmm. commune Cheikh Rafal du am mais ci biir njaboot ak Cheikh Rafal gi nag hmm. sëñ Cheikh Rafal gi giir giir ci njaboot gi hmm. di giir ci doom xamut ab sët taali la xam waaw nee na lamb yàlla waaw nee na lafañ bi tëdd ci kaw lalam waaw naa rek mu xool Babacar Mbow jël baatinam peese baatinam daan tunni góor yàlla mu yor melo sëñ Abdou Lahad ci dëggu ak pas-pas sëñ Babacar boobu ndéem tagguma ko damaa gis lu muy def billahi wa ma sayidna ila bima halimna wa ma kunna lil xaybi anfisin lu ma sereel kenn lu ma xamut sëñ Bamba rek laa gëm sëñ Muntaxa rek laa bëgg lii may wax nii hmm. billaay barki Cheikh Mountakha ci kanam Cheikh Mountakha dama ko fay wax hmm. hmm. sëñ Babacar Mbow am ndendam amul ci monde bi fi mu nekk ku ñu may yenu yenu un milliard nangam gàddaay sa kër tëj buntu yëpp ñàkk ko wëlbati ko dem sanc ak dëkk ci diggan ci instant yi nga yaakaar ne dëkk ba mu fa sanc am na fa téeméer at te liggéey suñu tubaab ko fa tax mu dem mu dem fa yóbbu njabootam yóbbu juróom yóbbu toolam lépp mu yóbbu ko amul dara lu mu bàyyi ndéem dem toog fa ba noppi nag saa boo ko gisee da ngay sa xel dem ci Cheikh Ibrahima Fall ndaxte li ko wér tëni bi maanaam moom mën naa ami gañila mën naa ami gesneer mën naa am lu nekk waaye léppam da koo jël def ko tëni bu ñuul kukk ni Cheikh Ibrahima Fall daan def mhm. naan sëñ tubaa sama ñuul gi moo indi leer ak sëñ tubaa gi ci gàttal mhm. Mhm. Cheikh Ibrahima Fall du ko Hmm? kii ma ni sunu borom la kenn mënu ko natt nañ kii mooy Cheikh Ibrahima sëñ Touba muy kéemaan ak kéemaan yi hmm. doon kéemaan ci biir sëñ Touba naa la ci wax dara waaw hmm. sëñ Touba moo woo Cheikh Rafal fa fa yaf sama teel ne ko dama wutal ma ay xeer ay xeer ay xeer déglu foofu baax sëñ Modou Aminata Fall maa toog mu nettali ma lii mu wax ko ma dégg. Serap jël nga joom jël ga ay ay ay fàggu fam yëpp dugg ci àll bi. balaa looloo am. daf doon majjal. majjal mi mu doon majjal. mu mel ni ko gëlëm. daanaka boo ko xoolee. yéeg juróom-ñaari asamaan. ñoom fekk ñu teew di mbooloo moo xam ne. bagaan dañ taaj seen digg. daa mel ni ci leer la ñuy dund ñoom. mu daal di asalaamaaleykum. waaleykum salaam. am ku ne bëri jóg ca mbooloo ma. Mhm. ña ndab la. Mhm. déglu foofu baax. Mhm. am ku ne bëri jóg ca ña ndab la. dikk ne ko waaleykum salaam. yow ndax nit nga. wala jinne nga. wala ab malaaka nga. te moom bi mu ñëwee dafa nuyoo moom Cheikh Rafal. daal ni taalibe gi saraxu rek. am ko jóg nag ca ak leer ga mu tiim gañ tiim ñoo mbooloo moomu dikk nag ne ko yow ndax nit nga walla jinne nga wala malaaka nga hmm. mu ne ko man taali bi ak foo jógee mu ne ko man ta nit laa taali bi sëriñ Tuubaa laa hmm. mu ne ko xamu ko xamuñu koy hmm. sëriñ Tuubaa déglu foofu Serigne Fall nee na nee na mu jóge fa ñibbisi bi ma ñëwee ma indi sama njàqare ak ak sama kersa ndax yaakaar ko ñëpp a xam Serigne Touba. Mm-hmm. bi mu dikkee fekk Serigne Touba ci koñ bi ci kër koñ bi ci kër Mbacke ci Mbacke Kajoor. Mm-hmm. bi mu dikkee Serigne Touba ci koñ bi ci Mbacke Kajoor. Mm-hmm. mu ne ko si rek la ñëw rek Serigne Touba di ko foo demoon. mu ne ko dama doon yelwaan gëlëm. dem naa ci barab boo xam ne ñoom fa fekk. ndabal leer la ñu taaj. ndabal leer loolu ñu taaj nag. nee naa leen maa ngi waan taalibe ni saraxu reer am ku ci jógee ñëw ne ma foo jógee nit nga wala jinne wala malaaka ak foo jógee ma ne ko ma ne nit laa mm-hmm. tali ci taalibe sëñ Tuubaa yi laa bokk lere mm-hmm. laay saraxu mm-hmm. nee mu ne ma xaw mu ne mu ne ma mu ne xamuñu kuy sëñ Tuubaa mu ne ko Ibrahima mu ne ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko delluwaatal fa nga jógee boo fa mën a dellu soo demee nga ne leen ana abdu ana boo demee nga ne ko ngeen ne leen ana Abdul Xattaab ndax tur boobu nga leen wax mm. la waaye bu leen waxee loolu dañ xam may kan Cheikh Alpha daal delluwaat nag mm-hmm. bi mu delluwaatee ne salaamaaleykum ñu fay ko mu daal di waxaat la mu waxoon mu ne ko yow nit nga wala jinne walla malaaka mm. mu ne man nit la mu ne ko ne ko ñu ne ko foo mu ne leen ci suuf laa jóge ñëw. ana Abdul Hatta ñu ne ko dangaa xam kooku wala da ko mas a gis. da xam kooku wala ko mas a gis. mu ne xam naa ko gis naa ko ci taalibe wi laa bokk. ñu ne ko kooku ñun bu ñu xëyee. Mhm. moom la ñuy bëgg a gis. Mhm. bu ñu gontee mhm. moom la ñuy bëgg a gis. suñu jotaay bi yëpp toog di ko xaar la. mësuñu ko gis te mu te te te moo moo moo na fi taaj am nañu kuréel yoo xam ne ñu ëpp ñu ci kaw suuf hmm. te kooku muy seen kilifa tey kooka hmm. Cheikh dafa ne sama xol soog a mu wëlbati ko mu dikkaatee fi ma fi ma bàyyi woon Sëñ Tuubaa mu taxaw ñu hmm. ne fa laa ko fekkal mu taxaw naka laa rek mu ne ma mu ne ma Ibra Fall demal bu mu tëddee nag ca ëllëg sa da ko Sëñ Tuubaa wow mu dikk mu tax ko ndigalal utal ma ay xeer mu dugg ci àll bi. gàddu jaaseem mooy jamono ji ko Sëñ Tuubaa bëgg a wàccee. garab gu ma dëgmal rek. garab gi ni laa ilaha illallah waaye da cee teg Muhammadu Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam teg teg jërëjëf jërëjëf Sëriñ Tuubaa. ba nag ko teg teg jaaraamaa Cheikh Rayane Fall. top nee na muy wër ci dëdd bi di wër ci dëdd bi di wër ci dëdd bi. ba jant sow. garab yëpp di sàbbal yàlla. to in min say in. ilay sabri bi am di. amul benn mbir bu dul wax ñun ñoo ko dul dégg. mais am na ñoo xam ne ñi sëñ bi buñ d'accord ak mbir bu bañ xëy ñu dégg ko. dëgg la sëñ Arafat ñooñu la bokk nag. waaye nekkatee booba temps liggéey bi muy liggéeyal sëñ Touba. tax na maanaam. maanaam fekk liggéey bi matut. lu dégg waxi waxi garab. mu dégg sëñ Touba ko ko. Euh, ne ko euh, mu di mu mu ñibbi si sëñ Touba ne ko Cheikh ana ana la mu la sant mu ne ko indi benn bant. Mhm. di jooy nag. di jooy jooy yu métti mu ne ko ana la ana ana ana ana ana xayr ya ma la waxoon lama yama la yónni woon ngeen wutal ma ko mu ne ko indi woon benn bant mu ne ko nax lan mu ne ko saa ma demee tiim garab rek jël sama nga jo bëgg a garab ko ma dégg mu ne la ilaha illallah muhammad rasulullah mu ne loolu sax taxut ma bañ a indi bant yi waaye mu muhammad rasulullah yi taxut laayi lay yi taxut waaye jërëjëf sëñ Tuubaa ji mu wax la du dama ko baax. waaw ba noppi teg ci jërëjëf Serigne Fall. Hmm. ci la ko sëñ bi nag wàccee. Hmm. xoolal bootaan moom. Hmm. mi ngi liggéeyal sëñ Touba. amagul jaajëfi sëñ Touba. di yéeg asamaan yi ci ci ci ci nu mu ko neexee. di ko fekk ñoo xam ne ñi sëñ bi. Eh, eh, jund ilay xaalis biir ñu daje lañu. ba noppi nag wëlbatiku ne di di di di ay leer. te ñooñu ñëpp di taalibe Serigne Touba. Mm-hmm. te ñoom xamuñu Serigne Touba man xamuñu euh, euh, turu Serigne Touba. Mm-hmm. Euh, Abdou Atta la ñu xam. Mm-hmm. yaa ngi dégg. xoolal ma loolu nga xam ni Sëriñ Fall jëfe na ko. ci diggante boobu nga xam ne. waaw waaw ci diggante boobu nga xam ne. waaw maanaam. moom la def te booba. yàlla sunu borom dogal na. amagu jaajëfi Serigne Touba. kooku yow foo ko foo koy teg. Cheikh Cheikh Babacar Mbow bi nga xam ne nag. moo na fi yebal. wax ne. képp koo xam ne kii bëgg nga. waaw. sa àddina baax. Mhm. sa alaaxira baax. Mhm. ndigal yii mu boole. Mhm. te kenn ku nekk bëgg am ndigal yooyu te amoo ko. ñaari ndigal la am. yu daje. te kenn ku di jullit ku nekk mësu am ñaari ndigal yooyu daje ci yow. ndigal sëñ Tuubaa ndigal Seex Rafaa Cheikh Sidi Mokhtar kenn ko ne xam nga ne Sëñ Touba sëkk la moom moo wax ne. bi ma toogee doon Sëñ Touba ñetti fan laa ci teg. Hmm. ma gis Sëñ Touba muy waaxu di ñëw dugg sama jëmm ji ba jeex tàkk te gisuma fenn fu mu génne. mooy Sëñ Touba. kon xam nga mooy Sëñ hmm. moo ko jox ndigal. Hmm. jox ndigal sëñ Cheikh jëm. Ah. sëñ Cheikh ñëw bu fekk li ndigal li ci sëñ Babacar ko. Cheikh dafa jox ko ndigal sëñ sëñ Touba jox ko ndigal. ñaar ndigal daje. mu teg ko ci ay mbagam. nekk ab général. ci biir yoonu murit. Hmm. Cheikh sëñ Cheikh Cheikh Cheikh Sidi Mokhtar dem. Hmm. Cheikh Mountakha toog. Hmm. ni lu sama bàyyi ma sa samp dama koy suuxat. lu sama mag ma sa samp dama koy suuxat. dama buddi benn jëmbat di sànni. lu fi Cheikh Sidi Mokhtar sampoon. dama koy renforcer dama koy feddi. tubarkal la daal di jëlaat ndigalal Cheikh Sidi Mokhtar loolee. feddiwaat ko sëñ Babacar Mbow. te kenn ku nekk bëggoon sëñ Mountakha tax liggéey ah. kenn ku nekk bëggoon Cheikh Moussa Di Mountakha santam liggéey te it nag hmm. mbiram sëñ Babacar Mbow mii hmm. nga xam ne yàlla sunu borom dogal na hmm. ci loxoom lañ ko te ku ci jàpp dina àgg waaw jàpp ci dana àgg ndax moom bakkanam bii la ci teg te ñaan na sunu borom sunu borom bàyyi ko fi ba mu jébbale caabi ba noppi gunge nag lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ñi nga xam ne ñooy saytu liggéey ba ah ci leen yoral seen lépp tubarkalla kon nag euh, sëñ Babacar <laughs> dinañ dinañ del siwaat kay suñu xol sedd na suñu xel na yal na sama borom doon jàmm tubarkalla <laughs> jërëjëf euh, jërëjëf Baye Babacar jërëjëf allah ah moom day euh, sëñ Baye waaw dafa mel ne nag moom day xam naa ni suñu xol sedd na bu baax tey li mu ñu indil nag macha allah mat na sëkk ci jotaay bi waaye dañuy delsiwaat ba tey ci liggéey bi mm-hmm. mel na nag ñu war a takku lañ jëm ca mm-hmm. ndax kat yoon wi moom jëf la. te maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ne kenn du fay wax ëllëg di bàyyi jëf. waaw ndax mas Cheikh Ibrahima mas naa wax ni. Mhm. kër sañ Bamba kër gi kat doom dañ fiy jëf baraw waaye kenn du wax baraw. wax ma fi dara. waaw xanaa kon Baye Fall yi faaw ñu soog ñu ci liggéey bi. wallaahi la si. maanaam mhm. ah, jërëjëf euh, sëñ Mamour. Mhm. di jaajëfalaat suñu baay bi rek. noonu dong la tëddee. ndax yow képp rek doy nga sëkk ci ndax sëñ Babacar diiru mu naal liggéey bi ba suñu jonnee maanaam dara loo ci ump amul. Mm-hmm. Euh, yaa ngi ànd ak sa équipe. Mm-hmm. gàddu say machine mm-hmm. di ñëw di saytu liggéey bi kem fa mu toll. di ko yaatal. fu tànk jotul te nopp mën faa man faa joti. di koy wane barab boo xam ne jéego bu nu faa jëm. ba ko mën a teg bët. kon jàpp ne yow it soññe gi. daanaka lañu ci jaajëfal. Euh, soññe googu. àgg na ci. tey jii euh, daara jii nekk fii ci wakaam. di maam Samba. am na maanaam weeru weeru weeru weer wu jot mhm. dina am caravane buy bàyyikoo ci barab booba ak fii di Guy Masalik mhm. muy ñi xam ne dañuy dégg liggéey Mbàkke Kajoor bi mhm. dégg sëñ Babacar ci bëgg ñii ñi ngi def ay kees ci barab bi café yi ñu naane flyers yi dem ci mbedd yi ñuy saytu liggéey bi di xool fu ñu jaar ngir mën a am accès yu dem ci liggéey ba saa su ne liggéey bi kaar yooyu di fa di di bàyyi ko ci barab yooyu. xëy na dafa mel ni sax dañoo teewlu euh, numéro bi ma sëñ euh, Fall waroon a yónnee. ngir mbokk euh, taal bi di ci mën a jël. mandargam xam ni fii bu ñu fi wootee ah, waaye ba tey dana leer ndax sëñ Mamour loolu dina ko leeral ci yeneen jataay yoo xam ni ku bëgg contact yi rek ko mën a am ci anam boobu waaye diggante Mama Samba ak Guy Masalik mm-hmm. mbokki taal bi bari dañ fi bàyyi ko mm-hmm. di jëm ca barab ba lu mel ni ajjuma dibéer ca ngoon mm-hmm. muy dimaas ñu départ ndax euh, da ciy am ñoo xam ne dañooy njàng tubaab di ay étudiant mm-hmm. ak bokk taal bi bëgg a barkeelu ci liggéey ba ci seenu ñax mbaa boog nit ne ci barab mm-hmm. jëm Mbàkke Kajoor mm-hmm. dan sa benn wëlëre muy dégg Mbàkke Kajoor gi du xam nu mu ciy def jël fukkam ni la yóbbaale ma ci liggéey ba mbaa nangam ndax kat yàpp naa ni euh, dafa dal xel ci li ma ni sëriñ bi nga boo ko joxee dërëm mu fulal ko ba muy junni kon sa dërëm ba lu mu koy jariñ may faral wax tamit nag ni banque bi xam directeur banque bi. xam nombre de personnels yi. te sa 100 francs amoo ko fa ci compte. ah. daa daanaka de doo fa jëlee dara de. ci li ma yaakaar. xam turu banque ba nag. ak nombre de personnels yi daal. directeur banque yooyu yëpp daanaka foofu moom. Euh, bopp buy tourmenté képp la waaye lu gàtt gàtt gàtt boo lijjantul ñoo ñëpp te sa te sa dara ma caa tàbbi hmm. bu génne jotee initial bi di ko génne waaw moo loo wóor sax bu génne jotee di nga ko génne hmm. te ku ne sëñ bi ne xam na ni sëñ moom moo mën a ful waaw koo xam ne di nga séen lu sam njoolaay jotiwul mm-hmm. sa kàddu du àgg uh, foo xam ne sab jéego jotiwu fa mm-hmm. kon war nga xam mm-hmm. mbagg ma nga tong bu ko fàttee waaw tabarkalla mbagg ma nga tong bu ko fàttee te sëriñ bi ku ne xam na ni maanaam nit dina toll ci barab ñaari séen loo xam ne xam ne lii ma seen du sama am njoolaay kon maa ngi bëgg a wax ni kon kem li ñuy yaxantu lañ cay séen di ko gis muy doon am koom wala doon njariñ suñu ñaq yi tabbi ci jibi eh, ci tabbi ci ndax sama am seen faal daa wax ne yaara ngay mu ni faal mu ne su ngeen bëggatee mbir nu ngeen di def si yaan dën ne ko faal dimbali ñu mu ne ko waxal sa xalaat ci li ma la laaj mu ne ko bu doon ak bëgg la ñuy xalaat de bu fekkoon tey dañuy bëgg dara dañuy dënirlu di jël suñu bëgg di ko joor ci barab di yëddu sëriñ bi di jël suñu bëgg di ko joor ci barab di yëddu sëriñ bi ba bis jot ñu dégg bëggu sëriñ bi ñu jël suñu bëgg a su bëgg a matee suñu bëgg mat kon day mel ne kon bëggug sëriñ bi ni ko euh, euh, sëñ waxee euh, sëñ Cheikh Sidi Mokhtar bëggam nga mu bëggoon Mbàkke Kajoor bill gi gën a kawe suuf sa gën a am cëslaay suuf sa gën a am wàccuwaayam moo waral mm, santaaneem bu njëkk di liggéey booba boo ko ma saan fekk na bu ngeen jàmma sante ba nuyoo boo ko ne Mbàkke Kajoor laa bàyyi ko ñëw mbaa fa laa jëm soo jógee geneen gan ngay doonaat ci moom geneen gan ngay doonaat ci moom ndax sonk bu mu sonk suuf soo sa kon euh, sëñ Mamour ñu ngi sant bu baax ndax soññe gi noonu la tëddee ndax tey jii sama wëlëre woo nga tudd Cheikh Maysa Gueye nga xam ne mm, moom sama digg sëñ Babacar mën naa ne xame nga ci moom la jaaree te nu bokk benn buntu muy jàmbaar joo xam ne moom it bokk na ci jàmbaar yi Sëriñ Abdourahmane yi nga xam ne yendalul fanaanul lu mu am jeex na ci sëriñ bi lu mu am jeex na ci sëriñ bi ba maa ngi jéglu sëriñ bi naalal ko ngan goo xam ni le 16 février incha allah giinu dëgmal te xam naa ni dina ci gën a waxtaan ak yow ndax loolu bi bis la boo xam ni dinañ ci gën a waxtaanaat incha allah bi waaye daal jàpp ni soññee gi ak Baye Fall yi jaaju ngir jëm ci liggéey ba sëñ Mamour li fi njëkk a jaar ci mandargam télé bi ak misaal liggéey bi doy na sëkk na gaa ñi takk ndig yi na gaa ñi dëgmal ndax kat mbaa kajoor damay jàpp ni su fekkoon tey jii danooy am xel mu dal ku saw ñàq ma sa toq ca liggéey ba mbaa sa juróom dem ca boo nee tekk xalaat ko sa xel dina dal torkal teekka naa ni yàlla suñu borom suturaal na dongo yi mm-hmm. seeni ji ba ñàkkul am na lu ca ne yoon wi yàlla suturaal na jaam ñoo xam ni mm-hmm. wallahi asim mm-hmm. million par bis bu seen problème seen problème te wallahi asim la maam seen afal xoon muy te leen alal te moytu wërsëg alal ñu ko am bëriwul ñu koy bëriwul te am ko yombul te wërsëg kenn ñàkk ko mhm. bis bu nga déggee ci jaat ba ca armée bu ñu la waxee ba mu xët sulla mhm. wërsëg ba ñibbi na mooy loolu moo mën ci àdduna mhm. kenn lañ ko moo ko dootul yow alal nag mooy makaarim ak taalibe ak sa njaq wi di génn di jëm ci tool yàlla yi ci la ma yaakaar jërëjëf kon jàpp naa ni <laughs> euh, lan la sëñ Bay di tàggatoo mel na ñu ngi ci catli kay fi ne macha allah daanaka kay fi ne waxtu sax romb nañu bu yàgg kéemaan la kéemaan doon tàggatoo kaddu te du doon tàggatoo jëm ak ruu mhm. euh, xanaa euh, di jaajëfalaat bu baax a baax baax borom tool yi di sëñ Aliou Thioune mhm. ak maanaam mbooloo àndal yëpp ci liggéey bi mhm. di leen ñaanal yàlla sans borom kattanal leen te dëgëral leen ba tool yi di lamfal. yàlla suñu borom def fi gàncax goo xam ni. dana meññ di law. ba jiw yi doon ay barabi lamp faal yu bare baree bare baree baree bëri. ci gox bi. ndax kat. doon na loo xam ni am nañ ci xel mu dal bu baax a baax a baax. ci liggéey bi kon sëñ Mamoud. Mhm. suñu xol seet na suñu yaakaar yokk na. na la sa borom kàtt na defal ñu lu kawe suñu jot doy maam nu waaj màggal mhm. euh, mhm. ca buñ ca yegg ak jàmm yaakaar naa ni mbokk taal bi. am na caravane bi déparé Mama Samba mi ngi fi déparé euh, le le la fay dépare jëm Mbàkke Kajoor yaakaar naa ni des na gën a leerlaat ngir donge bu ñu si bëggee jëm incha allah bi kon suñu kàddu foofu la ko wàccee di siyaaraat bu baax a baax di jaajëfalaat bu baax a baax mbokki taalibe yëpp di tuddee jéglu kàddu yu juunoo na kàddu yu dëng na waaye waaye suñu baay bi ñu toogal daanaka lu fi dëgg ci kàddu rek jubbante na ko ci xam-xam bu sell da ngay waajal da ngay xanaa booy demee Touba moom lamfal ngay si Ila Touba baa ngi ci biti de. Eh, waaw maa ngi jégalu. waaw Ila Touba bi laa seen sànq ci màndargal télé bi ci biir seen bi. Mhm. damaa jàpp ne sax jet privé la. waaw jet privé laa ko tegoon jet. kon mi ngi ñëw. jet privé laa ko tegoon. ndax sell gi uh-huh. ak bagage yi ci ne uh-huh. ak maanaam confort bi tubaarkalla te loolu rek mooy wàccuwaay loolu loolu kon tudd nga ko moom mi ngi ñëw kon jet ba ngi ñëw waaw kon yaakaar naa ne kon lamfal gi moom ak ak Ila Touba gi na uh-huh. doongay jaaju di fi duggee far tubaarkalla alhamdulilah <laughs> waaw yal <laughs> ah, eh, eh, na ko fi yàlla yàggal te amin amin amin ñeenti ñi koy saaba yu njëkk ñu daroon Seydina Muhammad mhm. di ñeenti ñi nga xam ne mhm. ñoo daroon Serigne Touba mhm. kenn ko ci nekk Serigne Babacar am na ci jikko jikko ju mu jël turandoo woon nag muy ba mu jeex takk Cheikh Ibra Fall rek la gëm Serigne Babacar boobu Cheikh Ibra la gëm waaw lépp Cheikh Ibra Fall la ko yor mooy lépp dëggu gi Serigne Omar Seydina Omar la ci jël dëggu gi mhm. Seydina Omar la ci jël ba jeex ko jeex jeex tàkk lu mu la wax lu lay def lu mu la waxul du ko def mhm. Mhm. ku fekk sëñ Babacar fee nga mi ci pas-pas bari Ousmane tab bi nekk ci moom bay sëñ Tuubaa dafa naan baatu ne biyu ilaa fajrin yarumu ridan mina laay saa taf di tab get faw na tam googu mi ngi ci sëñ Babacar Mbow. tubarkalla. Mm-hmm. jërëjëf. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. xam-xam bi nekk Seydina Omar. nga xam ne bu sëñ mu Massan toog daan teg. bu jëm yi dikkee ne ko. Eh, eh, eh, ne ko fu ma ne. gannaaw yow lañuy wax ne yaay diiga yaay bun yaay bunta xam-xam. fu Omar ne. mu xool xool xool du gis kenn ne ko yow la. noonu la sëñ Babacar xame góor yàlla yi. war a ànd ak moom liggéeyal liggéey liggéeyal sëñ Tuubaa ci yaa ngi dégg. maa dégg bu baax te gis nga loolee. Mm-hmm. Sëriñ Tuubaa waxal na Omar. Mm-hmm. ñàq joxe ko moo ko waral. Mm-hmm. Sëriñ Tuubaa nag wax ne. yàlla. nungul na nungul na yonent bi ay ñaanam. du dëgg. mu ni. wa fii xaala na bi. Ousmane yëg soxal fii. sax ina at na lu ko oo naa. maanaam juróom ñaar fukki junni. ci e, ak. acte bi nga xam ne. moom la Seydina Ousmane defoon keroog. macha allah maanaam nag la sëñ Ismaïla Niass defoon keroog. waaw maanaam sëñ Babacar boobu mi ngi koy taxawee ca biir. kon képp koo xam ne ki nekk gab taalibe wala nga nekk ab julit. nga nekk ci réew wala nga nekk ci bitim réew. Hmm. ñu ngi lay yëgal ni. Hmm. liggéey bu rëy bii nga xam ne Serigne Touba ak Cheikh Rafal ñoo ko jox sëñ Babacar boobu hmm. maanaam kenn ku ci nekk saw ñàkk war na cee dugg. ñëpp ci war a jàpp góorgóorlu bala ñoo toll waxtu wi déwén. mu woote. immigration bi nga xam ne ñëpp koy bokk fekk muy ndamal murit di ndamal Baay Faal yi di ndamal islam bépp. yàlla yàlla sunu borom. Euh, xeeb te dolli. ni ngi lay sant. Mhm. billaahi di la gërëm. macha allah di la ñaanal. di fasante ak yow kóllëre alhamdulilah ngir jëmi sëñ Touba ak jëmi Cheikh a Fall ak jëmi sëñ Babacar moom nga xam ne macha allah moo na feebar di ñaan ci barke Cheikh Mountakha mi soxna Basir amiin ku fi teew ku ne amiin fajak aju mbiru yàlla ko yàlla defal sëñ Mountakha dama na wax ne foofu laay daaneel mhm. moom nag ma sama waay la waaw sunu waay la ñu la waay mën a wax adduna bépp Cheikh Mountakha laa ci gën a bëgg hmm? maa la xamal loolu ndokke noonu ndok ndokke noonu mhm. moom laa ci gën a bëgg ci addina ndokke hmm. boo nekkagul xalif général bi. bii laa sama xarit. bëgg naa ko lool yow képp sama xarit nga. dama la ne. Hmm. nee na. Hmm. fi hmm. ku bokk Serigne Touba wala Cheikh Ibrahima jox leen ko wàcce way Serigne Touba wala wàcce way Cheikh Ibrahima. dañuy wax nu loolu. waxaat ne. fu ngeen gis ab julit. dañu ko jàpp ni seen bopp. tubaarkàlla. fu ngeen gis seen moroom taalibe dafa leen ko wudi seen ab sax. kon yéen ñi man man seen seen ab taalibe laa yéene sama sax. jërëjëf ñoo mm-hmm. ngi ñaan ci barke Seydina Mouhamad mm-hmm. yàlla sunu borom mi nga xam ne mm-hmm. ku ñu wax sëñ Mor ku ñu wax sëñ Mor Ñang nekk Bambey waaw Mor Ñang waa këram ya ñu doon woote léegi bëggoon a dugg wax nga dëgg waaw même njaboot gi maa ngi jox ziarum nag sëñ Aline Thioune ak sëñ Bay di ñoom ñëpp dëgg la dëgg la sëñ Bay di wax na ma lu bëri ci yow ndeysaan ndeysaan waaw te ñu ngi sàkku nag nga ñaan sëñ Aline Thioune itam sunu borom defal ko ndam liggéey bu tedd bi nga xam da ko bokk ak murid yi sama borom yëkkati ko ci ba ni sorol lam fal ba mel télévision bi mel ko ak mboolem murid yëpp nag ne ci biir daara ji fii di liggéey waaw ci wàkk Cheikh Amadou Mountakha ak mboolem koy jàppale ci liggéey mhm, mhm. maanaam ngeen di raw seen i morom ba faaw ah, alhamdulilah rabbil alamin te it nag mbir ah. ñi de ah. du mu ànd ak kuy dellu gannaaw wàkk ndax yàlla hmm? ndax hmm. may wax nii ndax yàlla hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci Ndakaaru dégg li may wax du mu ànd ak kuy dellu gannaaw ndax yàlla noonu ndax yàlla jërëjëf ndax yàlla mu ànd ak dellu gannaaw déedéet te fi ma toog mën naa leen fi wax loo xam ne li mu leen ko waxee fii ba déwén du ngeen fi faatu alhamdulilah muy ñaar waaye fii ma toog nag maa ngi leen di biral ne am na sama jëwri ñu nekk ci dëkk bi muy sëñ Ibrahima Guèye di représentant général de Kulu Mouride ca Bamako mi ngi ci dëkk bi maa ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm di siyaar yi tamit nag ki nga xam ne hmm. mooy sëñ Mbacke Seye mi nga xam ne mooy président de toutes les daayira yi nga xam ne ñoo nekk biir Bamako taman foofu laa nekk 40 ans ah, di ñaan ci barke sëñ Tuubaa Bamako yàlla fajal waaw kay Baye Babacar waaw bëgg na bëgg nañu fekke waat déwén de waaw kay da ngeen di fekke waat déwén ak ñi teewlu waaw ak ñi teewlu ñëpp incha allah ak ñi teewut nag ñii ak ñi baax waa kër sëñ Fallou gépp xam nañ ko xam nañ ko du nii mhm. mhm. li may wax nii xam nañ ko du ñeema àndal xam nañ ko mhm, li may wax nii Afrique gii nga xam francophonique la fa fi teg sama tànk ku nekk dañ naan dañ naan enseignace ah, ki ñuy enseignace walaay ñun ñi xam na waaw enseignace loolu nag moo tax ma xamale ni seen seen kër gi ngeen ne waaw maa ngi ñaan ci Cheikh Modou ñaan ci mu am de barke Cheikh di ngeen dem ba benn

moom fu mu pikiroo ma naan fay doom maa ngi moom ñoo bokk fii waaw Aliou Badara Diouf <laughs> waaw waaw tubarkal ñoo ngi ñaan يلا فج أجيب أنس بكلمة لا إتمت من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله يدسي لا يضر ما اسم يسمى في الأرض ولا في السماء وسم الحليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنا ترتا متقم فأرسلنا أنت رحمة ولي ولا دين نصرتني فإنك نسير ما حوتي بإنك البصير وما نصر إلا من هند لا نصر من الله يوفات خريم وبصير المؤمنين ذلك فضل الله إنهم ولا ربي ولا إله إلا الله إن فضل بيد الله يتيم الشيخ wala aw sul fadli ak wér mu ci am yaag yokk barkeel wér mu ci am yaag yokk barkeel wér mu ci am yaag yokk barkeel barke Sëriñ Bamba maam Thierno Cheikh Ibrahima Fall barke maam Cheikh Anta amiin barke sëñ Modou Moustapha barke sëñ Modou Mourtada barke sëñ Saliou Mbacké amiin sëñ Saliou Bassir gudd gi fan wér gi yaram mu gën a fet gudd gi fan wér gi yaram mu gën a fet amiin gudd gi fan wér gi yaram mu gën a fet olobu salaatin ma salaamin bilantiya ala abi baaxin saana rohi usmani allahumma salli ala sayyidina mu jël faati li ma oxleka wal xaatimi ma sabaqa naas aq bi aq wal haadi ila siraatika al mustaqim wa ala ali aqa xadri aqa xadri aqa xadri mu daal subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin barke sëñ Fallu barke sëñ Fallu barke sëñ Fallu sëñ Modou Mountakha yàlla yàlla fa jaage direction Cheikh Ibrahima Fall jaage bi bali ma